asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm Barça wala Barsaq di ay kàddu yoo xam ne nag dañ ko daan faral di dégg ci ndaw yi nga xam ne dañuy jël gaalu looco yi ngir dem ca bitim réew ëcculikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñee xamal ne tey jii la waalo gën a ay léegi sax ndaw yi yematuñu rek di wax Barça wala Barsaq léegi nee nañu dem rek maanaam daal ñoom daal dem moom moo leen a yitteel te nag fépp fu ñu ko mën a jaaralee dinañu ko daal di amalee loolu moom moo tax ñuy faral di jël gaal yi tey jii nag julikaay bii di Sud Quotidien daal di ciy def am gëstu gu yaatu tàmbaleeku nag ci lan moo waral ndaw yi bëggatuñu toog fii ci biir réew mi léegi dem ca bitim réew dong de moom moo leen yitteel ñañ ñooy faral di dem ñi ci ëpp ay ndaw lañu wante léegi sax dañoo nemmeeku ne jigéen ñi tamit ña ngi cay faral di bëri ñi leen di yóbbu ñu tuddee leen ay passeur wala boog ay courtier wala boog ay rabatteur ñoom ne ñu ngi ciy gis seen bopp ndaxte koppar takku nag la ñuy faral di am su fekkente ne jën nañu ay nit yóbbu leen nag ba ca bitim réew wante dañoo nemmeeku ne ci fan yi ñuy jógee am na benn gaal boo xam ne dafa feesoon dell ki ak i ndaw gaal ba dafa am ab lakk-lakk nga fa nemmeeku ba mu am nag si ñàkk seen bakkeen jolikaay bii di enquête di ñu xamal ne bu ñu sukkandikoo euh, ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ngànk lépp lu jublu ci wàllu kaaraange fii ci même réew ñi ñàkk seen bakken ci biir lakk-lakk boobu amoon ci biir gaal gi dinañu toll euh, ci téeméer yu tegal ñeent fukk jolikaay direct news di xamle ne li mel sax mën naa gën a yokk ñoom sax dem nañu bay xamle ne suñu maytuwulee dina toll ci ñaar téeméeri nit direct news ne waaw ana société civile bi ana parti politique yi ñoom ñi nga xam ne sax lu xew ñu ŋawti ŋawte kew yëkkati seen kàddu dafa mel ni ne ci wàllu Barça wala Barsaq bi daal kenn déggu leen ci ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñàkk seen bakkan laas yéen kaay du ñu xamal ne ñaar fukk ci ñoom ña dëkk fa li nga xam ne de moom mooy ci diwaanu Ndar li ni mi jiite mouvement ànd taxawu di ko naqarlu ndaxte moom daal di ne gis ne léegi ndaw yi amatuñu wéeruwaay amatuñu sax liggéey gu ñu mën a suturloo lool nag moom moo tax ba ñuy jël mbëkk mi moom mu daal di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne la ñoom ñoo ñu jiite ndaxte tey ji amul lenn loo xam ne teg nañ ko fii ngir ndaw yi wàccee mën a sukkandiku toog nag tedd fii nga xam ne moom mooy ci biir Sénégal ñu jukki jëmale ko ci kaddu yi nga xam ne kii di Serigne Mbaye Thiam daf ko fasaloon jëmale ko ci parti bii di parti socialiste di xam le ne intérim bi doy na sëkk faw nag ñu daal di xool wante dafa mel ni ne kàddu yooyu am na ñenn ñu bokk ci biir parti socialiste ñoo xam ne daf leen a merloo ujolikaay bii di critique ne ñu union de coordinations socialistes bu ñoro ñoom daal dinañuy xamle ne ñu nag ci kàddu yooyu nga xam ne kii di Serigne Mbaye Thiam moom moo ko daal di fësal ndaxte kàddu yooyu daal mën na yàq nag lëngoo ñu lëngoo ak parti présidentiel bi mbirum Frank Timis dañ ciy jukkiwaat Frank Timis boo ko déggee rek sa xel day dem ci wàllu pétrole dugal tey ji cuulikaay bi di Les Échos moom moo ñuy xamal ne am na koo xam ne nag xam-xamam dafa màcc ci wàllu guerre ci biir secteur du pétrole moom dafa mel ni nag ni ma ngay dëggal kàddu yi nga xam ne kii di Thierno Alassane Sall fësaloon na ko jëmale ko ci kii di Franck Timis ndaxte moom daal di ne xamle ne réewum Sénégal dafa jox Franck Timis ay bloc gazier te nag laaju ko ci benn dërëm moom moomu di Franck Timis nag daal di wëlbatiku dem jaayee goo xam mun nañ ci suturlu ak tamit ay sëtam ci seen giiru dundu muy mbir bu doy waar ci biir culikaay bii di Sud Quotidien suñu naataango yi di ñëwaat ci ay kàddu yi nga xam ne docteur Ajaratu Wax ay dara Ndiaye nekk directeur exécutif bu partenaire West Africa Sénégal fësaloon na ko jëmale ko nag ci tolluwaay jigéen yi ci biir yenn ci ay kuréel yu am solo moom moomu nag nekkoon ganub émission bii di objection daal dina gis ni ci wàllu résolution 1325 bu ONU te mu daal di jublu ci tolluwaay jigéen yi seen àq ak seen yelleef am na ay dëkk yu bëri yoo xam ne daal ñu ci lu bëri réewum Sénégal tamit fa ñu koy xaat ci wàll gi ni mel des na docteur Ajaratu Waxa Aydara Ndiaye di gis ne réew yi kon war nañoo def seen kéemtalaay kàttan ngir fexe ba jox ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen yi gëdd yi nga xam ne nag moom lañ leen war jox ci biir yenn ci ay kuréel Le Soleil tey ji seq waxtaan ak njiitu réewum Burkina Faso di Roch Marc Christian Kaboré ci wàllu élection présidentielle yi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ci dëkk boobu ak tamit yenn ci ay jafe-jafe yi nga xam ne ñoo koy jànkonteel ci wàllu euh, terrorisme loolu yëpp bokk na nag ci waxtaan yi nga xam ne suñu naataango yi euh, seq nañu ko ak moom jeexale ko ak xew-xew nga am fa li nga xam ne moom mooy ca euh, Guinée Conakry ndaxte ginnaaw résultat yi nga xam ne waa seen i daal dinañu koy fësal di wax nag ne kii di Alpha moom moo ci am ndam réew mi quotidien mi ngi ñuy xamal ne nekkete yoo am na ay commissaire yu bokk nag ci biir seen i ñoom ne dafa mel ni ne lañu gis moom mooy ne jalgati nag moom moo am ci wàllu résultat yooyu rax ci dolli waa FNDC di ab kuréel goo xam ne ñoom la leen taxoon na jóg moom mooy fexe nag ba kii di Alpha Condé du nekk candidat ci wàllu élection yi ba sa mujjantal ga li ni mel mujj na am ba mu gagné élection yi tey jii nag kuréel boobu moom moo woote ngir liggéey du amati nag foofu nga xam ne de moom mooy ca Guinée Conakry lu weesu ñuy liggéeyee ci hôpitaux yeeg ambulanciers yi journalistes yi ak tamit waa Croix Rouge nee nag képp kuy yeewoo foofu nga xam ne moom mooy ca Guinée Conakry ña nga lay ñaan nga daal di banque seeni yoxo ndaxte ñoom fu mu nekk nii pare nañu taxaw nañu teem ngir fexe ba kii di Alpha Condé daal di jóge ci boppu réew mi lii moo nekkoon batulikat yi li gën yi ñu leen di ñaanaan njeextalu bés mesdames et messieurs bonjour la migration régulière engagée par des jeunes au péril de leur vie est de plus en plus fréquente ces derniers mois aujourd'hui nos confrères de Sud Quotidien nous proposent tout un dossier sur ce euh, phénomène et tout d'abord nos confrères commencent par nous expliquer les candidats car selon nos confrères toutes les couches sont au départ vendeurs, les courtiers et passeurs. Tout dernièrement, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien à Saint-Louis, 20 migrants euh, sénégalais ont été tués dans une explosion. Et tout dernièrement, 20 migrants au large de Mbour, 51 personnes secourues et 180 clandestins interceptés entre Dakar, Mbour et Saint-Louis. Et justement, concernant l'explosion de cette pirogue remplie de migrants, nos confrères du journal Enquête nous parlent d'hécatombes car même si le nombre exact des victimes de l'explosion de cette embarcation remplie de migrants n'est pas encore connue. On craint le pire car du côté de l'enquête, les premiers éléments laissent à penser que la pirogue était remplie et le chiffre pourrait dépasser largement la centaine. Les cinq convoyeurs ont été arrêtés. Toujours concernant ces Sénégalais qui périssent en mer, nos confrères de Direct News nous indiquent que les dernières statistiques font état de plus de 200 morts. La politiques s'y à marcher pour moins que ça, font le mort face à cette tragédie et selon nos confrères de Direct News, le chef de l'État est interpellé. Dans le quotidien LAS, nos confrères nous parlent aussi de ce drame de l'immigration clandestine à Saint-Louis avec 20 jeunes qui périssent en mer et le président du mouvement And Taxawu Pikine, Cheikh Gueye, peine à se prononcer sur cette tragédie qui frappe son quartier et il a dressé un tableau chaotique de et programmes euh, pour les jeunes des différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays. Pour lui, ce sont des jeunes désespérés qui ont pris d'assaut la mer pour des lendemains meilleurs et cette catastrophe est un signal fort adressé aux autorités locales et nationales. Les déclarations de Serigne Mbaye Thiam concernant donc l'intérim à la tête du Parti euh, socialiste n'ont pas plu à beaucoup de ses camarades et selon nos confrères de Critique, le des élections est membre éminent du gouvernement et dépeint comme un calculateur par ses camarades de Nioro qui ont transformé la motion de soutien à eux adressée par une résolution de censure à ses activités fractionnistes. À l'issue d'une réunion d'urgence convoquée ce week-end, l'Union des coordinations socialistes de Nioro se désolidarise des ambitions démesurées du ministre de l'eau et de l'assainissement et estime qu'il sape les fondements loyaux du compagnonnage avec le camp présidentiel. L'affaire optimisme refait surface et aujourd'hui dans le journal Les Échos, nos confrères nous rapportent les révélations d'une experte spécialiste de la corruption dans le secteur du pétrole. Cette dernière, du nom d'Alexandra Gilles, confirme Thierno Alassane Sall, nous disent nos confrères du journal Les Échos, car selon elle, Franck Timis a gagné environ 900 millions de dollars dans les cinq ans suivant l'acquisition des blocs et aujourd'hui, il peut espérer vivre avec au de dollars

enjeux de ce double scrutin, mais aussi le Burkina des profondeurs. En Guinée, dans le quotidien Réumi, nos confrères nous font savoir que le FNDC demande l'arrêt de tous les services, sauf ceux des hôpitaux, des ambulanciers, des journalistes et la Croix-Rouge, des actions citoyennes à à partir de ce lundi. C'est donc dire qu'en Guinée, la tension est toujours vive et justement, l'on nous explique que concernant les résultats de la présidentielle, des commissaires indépendantes ont publié un document hier dimanche semant le doute sur la sincérité des résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre. Et selon ses membres de la CENI, les résultats ont été truqués. Terminons par nos confrères du journal Sud Quotidien qui nous rapporte les propos du docteur Adjaratou Waha Aydara Ndiaye, la directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal qui était l'invitée de l'émission Objection de la radio au Sud FM. Et elle s'est prononcée de la résolution 1325 concernant les femmes et selon elle, il y a encore beaucoup de travail à faire. Prenant l'exemple des forces de défense et de sécurité, elle a rappelé que la police des Nations Unies avait appelé à un effort mondial pour qu'il y ait au moins des femmes au niveau des contingents qui sont déployés pour les missions de maintien de paix. Hélas, s'est-elle désolée, à ce jour, au niveau mondial, on n'a même pas encore atteint le taux de Et sur les raisons de ce retard, des États africains. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.